asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax waaw gis ngeen VS bi nag lu bees tàkk lu raar gis nga VS bi daal ñu ko daal leen indil pour femme mariée yi ngeen def fu mu baax vase bi daal boo lañ ko gisee dafay def ay jeu de lumière am vase bi am na bultuf da ngay daal activer bultufam activer sa bultufu téléphone teg sa son bu la neex fel felaale sànneeku nu mu la neexee noon daal lañ koy defee vase bi daal tànn sa bu neex la am na façon bul bu nekk waaw da ngay ñëw rek tànn sa bu la neex ñu daal la koy jox prix bu abordable mun na la ko jox en détail comme mun na la ko jox en gros yow yaa xool rek ku ci bëgg daal na waa di woote ci numéro ko defee daal defante ak lu baax waaw waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna ñu ngi nuyuwaat ñëpp di ziaraat ñëpp di remercier ñëpp ñi nga xam te ne si ñu ngi suivre suñu analyse te ci joxe seen xalaat di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di masaw encore une fois umma islamique bépp ci li nga xamante ni moo xew ca Nouvelle-Zélande tey ñaan lu mel noonu yàlla bu mu fi amati. alors ñu ngi leen di rappeler aussi que képp ku bëgg montage rek muy photo vidéo que ça soit anniversaire mariage wala lu mu mënti doon wala ñi nga xamante ni aussi tamit. dañu bëgg ñu jël seen photo ak seen photo fans maanaam fans boo xam te ni soit mu ngi ci série maîtresse d'un homme marié wala ci beneen série bu mu mën a doon également boo ñu contacter ci numéro bi ñu joxe woon ñu rappeler ko mu 77 666 56 70 kuñ ci contacter rek dinañ waxtaan ak yow wax la nan ñu monter photo yi incha allah. de même que ñi nga xam ne également dañu am lu ñuy jaay bëgg visibilité nit ñi gis ko pour ñu jàll leen leen ko ci YouTube bi. bu ñu contacter aussi ci suñu service commercial bi di toujours 77 666 56 70 incha allah dinañ ci liggéey ak ñoom ci kàttanu suñu borom. donc di leen rappeler aussi que veilleuses yu yaañ yooyu ngeen gis ci début vidéo bi macha allah comme ni ngeen ko gisee rafet na lool te je pense que ñun ñëpp ñoo bëgg lu baax kon képp koo xam ni bëgg nga bégal sa soxna wala képp koo xam ni bëgg nga bégal sa borom kër wooteel gaaw ci numéro bii ñu leen di jox. di 77 115 78 35 ku ci woote rek di nga jot ñi nga xam te ne ñoom ñooy jaay veilleuse yi mu jaay la veilleuse yu rafet macha allah parce que dafa doon loo xam te ne charme la ci biir néeg charme la ci biir néegu sëy te nit ku ne danga nga war a bëgg lu baax muy jigéen di góor kon gars yi gaaw leen ngeen wootee ci numéro bii di 77 115 78 35 numéro boobu moom mooy numéro ñi nga xamante ni si ñoom ñooy jaay veilleuse yi suñu numéro service commercial moom mooy 666 bi 56 70 donc képp ku am loo bëgg a jàllale nga wooñu 666 56 70 mais képp ku bëgg ci veilleuse yi nga woote ci 77 115 78 35 alors tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat encore di leen defal beneen vidéo toujours ci seen série bii di maîtresse doo homme marié dañu gis quelques vidéos ci page Instagram bu waa série bi di maîtresse d'un homme marié mais dañ ci am ñaari vidéo yu ndaw yuñ ci bëggoon a commenter xam naa tey nag sama frère ni moom góor ñi dinañ ma xaw a mere mais juste waxtaan la rek weccante xalaat ku seetaan vidéo bi aussi ba pare soo amee idée mën nga ko def ci commentaire yi ñu waxtaan ci Kaffré mais lépp ci respect encore une fois lépp ñu teg ko ci respect parce que lu respect amul rek du dem alors kon maa leen di bàyyi ngeen seetaan première vidéo bi ñu dikkaat

donc ñu xool deuxième vidéo bi te dikk ko continuer waxtaan bi. salut salut les filles man la Lalla Pierre Ndiaye chérie Adjana Cheikh Diagne ku doon laajte faale ngooya ngi nii maa ngi ciy nuyu aw buur këram yépp yi nga xamante ni dañoo téye seen kër yi ay beaucoup d'affection et d'amour ñun nag boolewuñu dara ak ay wax nekkuñu fi di fat benn mbóot bu réer walla gunóor bu xamul fu mu jëm rawatina nag euh, jinaxu baje man nag duma tàntu ay gaaruwaale walla ay xale yu jigéen yu ñàkk kilifa xamuñu fu ñu jëm coupable capable criminel ku ma gis xam ne fees naa sama place te xam naa lu may def wala boog ajana ko bëgg ku fees sa xol. yow yow rek mm. donc là vous voyez Cheikh il est avec Lalla donc sa femme également même chose di ko gëmal moom tamit moo fi nekk tey lii la ñuy faral di ñu xasal ñun góor yi tey ku ñu jigee rek yow la quoi. bu sa morom dikkee tamit moom la ba keroog ñu lay gisaat donc mu nekk phénomène boo xamante ni si dañu koy xase mais tamit bu ñu xoolee ba ci biir <laughs> dëgg la. parce que ñun góor dañu xaw a doy waar su ma nee ñun góor nag du góor ñëpp ñoo tax may wax parce que yàlla mi bind sax yamalewul kon ñun ñëpp mënuñu yam sànq nag maa ngi lii benn post sur Facebook mu ciy wax que ni benn góor blessé la rek nga ni góor ñëpp a yam oto dina la fiir te oto moo la yóbbu hôpital kon cela ne veut pas dire que benn góor def na la lu la metti rek kon góor ñëpp a yam li ñuy faral di wax rek ñu bon ñi ñoo yàq ñu baax ñi. wax jooju nag ku ko dégg day yaakaar ni que ni ñu bon ñi dañu yàq jikko ñu baax ñi mais non non mais foofu li ñu fi bëgg a wax mooy que d'habitude d'habitude jigéen bu ko góor defee dara lu métti rek day maasal daal ni góor ñi ñoom ñëpp a yem looloo waral ñuy faral di dégg baat boobu souvent mais nag mais sœurs ñëpp yemuñu ñii baax ñi ngi baax ba léegi donte bëri nag ñoo xam ni moom dañ xaw a doy waar mais tamit ñii baax ñi ngi baax ba léegi alors bu ñu continuer waxtaan bi ñun dañu am boo xamante ni tey même sax ba suñu biir kër yi da ngay gis koo xam te ne day yor ñaari soxna mais soxna si teew rek wala soxna si mu aye rek kooku lay faral di la tagg di la gërëm mën na fa sax di dem ba di fa xaskale bu demee fële tamit du fa ayee tamit même chose lay def te je pense que tey jii nii li ñu digale mooy boo yoree ñaari soxna si biir kër nga yemale leen am nañ droit nag am ba ñeent soxna mais ci kaw benn nga mën ko te nga mën leen a yemale tolloole mais pas ngay jeng nit kuy jeng mënul yor ñaari soxna ba yor ñeenti soxna donc dafa doon jikko boo xam ni si nii dañ ko war a defaraat sunu boobu ñun góor bi ci gën a yées nag mooy am soxna ba pare di ko fa bàyyi di génn di topp ci xale yi jigéen ñi bay dem di fanaani àll doon na lu doy waar te lu ñaaw la bëri na nag ñu koy def mais je pense que tey nit ki li ngay dem ci àll bi dafa fa taxawaaloo nga takk ñaareel nga xam ni tey loo ci mën di def rek du doon loo yàq te loo ci mën di def tamit suñu borom da la koy bindal tuyaaba am na ñoo xamante ni nag ñoom génn di foo moo leen neex loolu moom kenn mënu ci dara mais ku xalaat ne tamit li ngay def nii ci àll bi yaa ngi ciy am bàkkaar di ci yàq sa xaalis te ku la ci fekk mu doon gàcce ci yow di nga ko bàyyi te jéem a xool noo takkee ñaareel indi ko sa biir kër parce que may nañ la nga am ba ñeenti soxna. kon gaay yi des fois dinañ ñu xas mu ñuy metti mais liñ ñuy xase day nekk ci nekkul ci ñëpp nag mais am na ci ñu mu nekk ba tax na ñu ñuy xas di maase waale góor ñëpp kon jikko yi ñun ñoo ko mën a defaraat te yéen soxna yi tamit ngeen di muñal seen borom kër di dab seen bànneex parce que bëri na ci boroom kër yoo xam te ne ñu ngi génn di taxawaalu ci mbedd bi wala ñi ngi génn di daw ci xale yi jigéen yi day fekk ni am ñu jàmm seen kër loolu également lu am solo la nit takk la indi la ci biir këram mënul am ci wax ju neex toppatoo woo ko faale woo ko añ sax ko toggal ay mbokkam faale woo leen kon kooku tey bu génnee di dem di topp ci xale yi jigéen ñi xëy na amul lu ko gënal mais dafa amul jàmm biir ba tey situation yu mel noonu si amee man li ma jàpp ni moo gën mooy waa ji ci boppam mu jël ñaari indi ko ci biir kër gi mën a sëy moom sëy bu rafet te bañ di def bàkkaar ci àll bi donc man je pense juste que à mon loolu mooy solution bi nga xamante ni si moo gën am na ñoo xamante ni nag ñoom am nañ jàmm seen kër yàlla moo leen xiir ci di taxawaalu loolu day am mais ñu jéem a defaraat jikko yi bu ñu waxee nag waxuñu pour góor ñëpp de am na ci ñoo xamante ne sincèrement fidèle nañu xam nañ àqu jigéen xam nañ gëddee jigéen macha allah mën nañ yor jigéen trop mais dafa am ñoo xamante ne également contraire bi moo nekk ci ñoom. parce que tout rek maa ngi gis beneen post sur Facebook ñu ni góor bu fidèle amul ku ñu jàppagul rek moo am <laughs> bon. ak situation bi du neexee yoon parce que peut-être que c'est une règle de manière générale quoi c'est une règle boo xam te ni c'est général mais am na quand même ñu fidèle loolu moom il faut également ñu reconnaître ko donc tey loolu moo nekkoon suñu vidéo juste benn point la woon bu ñu bëggoon a ak yéen te ñu ngi sàkku xalaatu ñëpp képp koo xam ne am nga ci xalaat nga mettre ko ci commentaire yi incha allah ñu mën ci waxtaan. alors comme niñ ko faral di wax rek ñu ngi delluwaat di tuubaat di jéggaluwaat bu baax a baax képp ku mu laal rek ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu te xam ne jëluñu ci lu dul waxtaan turbe ay xalaat kafre sotante ay xalaat loolu kese lañ ci jublu donc képp koo xam te ne suñu wax ji ñu wax gis nga sa bopp wala mu am dara lu la ca metti ñu ngi lay jégal bu baax a baax lu fi baax nag ngeen xam te ni ndimbalu suñu boroom la mais lu dëng rek ngeen xam ne ci man mii la ndax doomu aadama moo matul ñu ngi tuubaat di jégaluwaat bu wér a wér a wér di ñaanal di leen jox dig daje ci beneen analyse merci à tout le monde